Daouda Diallo cib audience rasu dem sax ba dik ko premier ministre waaye Abdoulaye Daouda Diallo moom daa mel ni loolu fukkul bëtam fi ni daal yoonu boppam la bëgg a aw bun Abdallah Dione it daa mel ni weneen yoon la nar a jël ndax yéene bi nee naam président Macky dana ko dalal tey moom bun Abdallah Dione waaye Aly Ngouille Ndiaye la gën a jege de bun sukkandikoo ci yéene kaay bi Aly Ngouille Ndiaye mooma nag lépp nooyul ci booram ndax direct news sabab mooy yéenekaay bi nee na ki fi doonoon yàggut dara jëwriñ ji ñu denk wàllu mbay mi waxu daal lu yay yooyele maire ba tax ñu mën a ànd ak moom ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal boobale élection enquête nee na kenn xamul fu muy mujj la présidentielle des inconnus nii la ko yéenekaay bi gisee li ko waral nag mooy Macky Sall bokk ci ku mayul it Ousmane Sonko du ca bokk ñi ciy bokk nag yéenekaay bi nee na ñu yay askan wi ngir yaakaar ñu fal leen Amadou bu bëggee ñu fal ko la war a def askan wi war naa fexe ba yéenekaay bi di Le Quotidien journalu Madiambal Diagne bi dellu si ci jaar-jaaru kandidaa wu Benno Bokk Yaakaar gis ni daal amul benn rëq-rëq waaye La Tribune nee na li na a doon ndëgg sërëx ci Amadou Ba mooy dundu gu metti gi kan wi nekkee ndaw yi seen yaakaar tas ba nuy wutali gaal yi ak itam tasaaroo gay xeeñ ci biir Benno Bokk Yaakaar foofa sax mooy mitti L'Observateur loola la gis kaay bi nee na tànn gi nu tànn Amadou Ba def nay dégaade ndax APR fi mu ne nii daanaka tas na ñu bari danoo ne tekk rek waaye naruñu jàmm Assemblée nationale itam ku mayul jàmm du l'observateur nee na majorité ba maanaam na fa bennoo ëppale wéerootut fu dëgër kuréelu maire ya itam l'observateur nee na tas na ki tas yaakaaru bennoo bokk yaakaar dëgg kay Aly Ngouille Ndiaye la bun sukkandikoo ci le mandat yéenekaay bi di laaj ndax mbettee la ko waral wala ñeewaate mbaa rek yëg sa bopp Macky Sall moom ñi gisul seen bopp ci candidature Amadou Ba bi ba fas yéenee fippu le mandat nee na rëq seen digg la nar ku ci ànd nag mën nga am jàmm Mamboy Diaw moom àndu ci te ko wone ndax source a du yàgg dara mu daal di yëgle candidature boppam ba nuppi tekki ndombal tànkam fépp fu ko président Macky Sall tegoon ña seede ci boobale yéene kaay na njiital caisse des dépôts et consignation xar kanam yu bari la am bu ko neexee mu doon militant bu yaroo yaru fu ngeen joxoñ mu jaar fa waaye bu ko neexee it activiste lay doon maanaam daal maam booy jaaw nu ko neex mel buñ sukkandikoo ci seede ya ca source a ca Walf Quotidien la ñuy seedeel Amadou Ba mooy nam àndeek ñoñam ya ca APR dara l' évidence nee na coalition indienne coalition bu am doole yori fit ak yeneen ñoo fas yéene jàkkaarloog amadu Ba ci élection bi nu dëkmal l' évidence di ca joxe firnde ne ndaje mu kenn yëgut am na ay lobby maanaam ay nit ñoo xam ne ci suuf la ñuy def daje nañu te ñu jege nguur gi la bokk na ca ñoom ay borom alal ak i borom bu buñ sukkandikoo ci yéene kaay bi l'exclusif booba jamono ne tànneefu amadu Ba moom dafa mel ni ku deetaa ci biir benn Bokk Yaakaar lii xew tey daa mel ni la xewoon ca PS jamonoy Diouf ci gëtti yéene gis na ni tànneef gi ñeel Amadou Ba ndam la ci ñuy doog a ñëw waaye defet la ci ñi fi yàgg macc fi xorom yey fi kaani l'exclusif tudd ca ñoom Abdoulaye Daouda Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne Aminata Tall Mbaye Ndiaye Birima Mangara mi fi doonoon ministre du budget jege lool Amadou Ba mi nu tànn tey mu doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar moom it day dem source a nee na léegi tey mu fësal candidature am coalition ba mu ca nar a àndal mooy àndaat defaraat Sénégal Sénégal gi nag bu ko Pastef bëggee jiite faaw mu xalaat ci beneen plan A B ba ci C lancé na gaañi saaxoo jege lool Ousmane Sonko bokk ci Pastef moo ni waxee ci yéenekaay bi di bés bi le jour yéenekaay bi di critique ne Pastef moom daa war a gëmm rek wut plan B wala mu wut candidat buy wutu Ousmane Sonko tagg Ousmane Sonko moom a xarab Macky Sall mooy li Serigne Assane Mbacké mi doog a génn def ci yor yor bi yéenekaay bi wëlbatiku xool RTS gis ni dafay salfaañee banqaas yi réew mi di ñaawloo ni direct ba ñu def keroog ba ñuy tànn candidat wu Benno Bokk Yaakaar ak di ko fësal Bakary Domingo Mané journaliste analyste retraite daf cee war a wax Ibrahima sa Faye ne ko jar na ko ndax ma tey dëgg la RTS di def Abbas Sow journaliste la ci RTS ni dëgg la yemale moom defuñu ko te lu ñu war a ñaawlu la liggéeykat yi ci gox-goxaat yi la ñuy ñaawloo mooy coono ganu nekke ak payeur yu bon ya Sud Quotidien mi ni ko xamal ni moo waral téeméeri waxtoog ñaar fukk lañu fas yenee gerew loola nag indi maire yi taxaw dara demut dara dikkut ñu ànd ak vox populi dem Kédougou yéeni kaay bi nee na saara yaa démb fipp la ndaw ya def ndax na préfet ba façon yéene ndaw yay liggéey yépp yooya ñaari nit ñàkk nañu ca seen bakkan fukk am cay gaañu gaañu libération ne ko kaay ma wax la ñi faatu ñooy ñan ka ci njëkk Bakary Cissokho juróom fukki at ak juróom ñett la am am na soxna ak juróom benn doom mag la sax ca meeru xosanto ka ca topp ñaar fukki at juróom ñaar la am moom itam am na soxna ba am benn doom doomu Burkina Faso la buy wuyoo ci turu Ibrahima Ouedraogo libération ne du fukk ak ñeent itam amee nañ cay gaañu gaañu ba nekk ci diggante dund ak dee waaye arrêté préfet booba mujjee naa dee ndax deltu nañ ca ginnaaw dogal la bu bàyyeekoo ci ministre de l'intérieur Antoine buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi di libération ñu des ci biléb yéenekaay docteur Barnabé Gningue directeur de la santé publique la mu fay waxit du jàmm ndax nee na at mu jot ci Sénégal fukki junneeg ñaar daanu am woppi cancer wopp yi njul wàllante te muy yàgg lool ci nit vox populi itam ci la xëy artu ne ma ngay def musiba ci ñu am lu yees juróom fukki at professeur amadu Gallo Ba ak directeur de la santé Barnabé Gningue ne ko yemul dong ci mag ñi ndax xale itam ña nga cay jot seen wàll yëf yi sonal na leen lool yaboon Jean Paul Dalméda nee na ba ma leen bëkkee la muy sonn sonn moom Jean Paul Dalméda àndoon na xelam waxtaan sax jot na kaa def ak ñoom sunu gayndee ñoom di waajal jongante yu war a dox seen diggante ak Algérie tey ci ngoon Aliou Cissé di dalal xel yi ci biir yéenekaay bi di réew mi quotidien ne amul benn revanche wala fayantoogun ci fas yéenee def waaye stade ne match bi romb na amical teewut nag ña ngay xaar lu taaru ca jam ñaajo ca Pikine lanu jëm ak Ama Baldé mi diggée ni couronne roi des arènes dana ko indi bu janook Modou